sur cette antenne de la télévision Futur Média retour euh, fi nga xam ne moom moo di biscuiterie de la Médina euh, dellu siwaat euh, ci li nga xam ne moom moo di Lamb Académie mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi gannaaw bu ñu defee loolu nga xam ne moom moo di journalu zéro heure bi ci kanam tuuti dinañ leen yóbbu ndar géej ndar foofu jazz moo fa am Saint-Louis jazz kon nag yi Ngañ Jaañ fan la ñu jëm bi yoon gannaaw ba ñu defee tirage yi ba noppi voilà ñi ngi jëm ci euh, li nga xam ne nag euh, mooy euh, trois yi nga xam ne ñoo war a def trois combats yi nga xam ne. Mhm. ñaar ñoo ci ñibbi. Mhm. Hmm. ñaar. faw waaw faw ñaar ñibbi. faw ñaar ñibbi faw ñaar ñibbi Malal Junior. Hmm. ñana nekk sa kanam nii. ñi ngi jëm ci onzième combat ñi ngi war a boole diggante Daouda ngam ani ah. mu mu yëkk ci loxo. Daouda Ngom mu war a daje ak élage Hadj Diop. El Diop kon arbitre bismillah kon nag arbitre. voilà léegi euh, ma récapituler euh, poule yi ni mu demee. Mm. Euh, poule A première Mamadou Seck am na 6 points. deuxième Mamadou Dieye am na trois points. Mm-hmm. ci poule B bi Léonel Diémé am na 6 points. Ousmane Sow am na trois points. Mm-hmm. ñooñu ñëpp qualifié nañu. Mm-hmm. poule C Cheikh Niang 6 points. Dame Ndiaye 3 points ñooñu qualifié nañu. ñoo def zéro faute. voilà zéro faute yaa ngoogu poule D bi. Mamadou Mbaye trois points moom qualifié na euh, kon defe naa ne ñett ñi des nag ñu repêché leen. mooy euh, Daouda Ngom ah, mooy diggante Daouda Ngom. El Hadj Diop El Hadj Diop. ak Michel Diémé ak Michel Diémé. Hmm. attention. Daouda voilà kon daal bu ñu. Ah, ah, ku nekk deuxième poule B moo qualifié ñu koy wax. Poule D. Poule D. waaw moo qualifié. Yacinthe. Yacinthe Amath Diouf. voilà Yacinthe Amath Diouf moo nekk kon nag ña nga ca ñi ngi joué seen daan des ci kër gi daanu ñibbi daan daanu ñibbi. daaw na jël ko. El Hadji Diop euh, euh, ki nga xam ne Daouda Ngom euh, Boubacar. daan des ci kër gi. voilà ñoo ci géew bi. daanu ñibbi. voilà ñoom ñaar ñoo ne ci géew bi voilà Lamba Académie voilà mi ngi avancé tey xam nga attention daw na jël ko ah way doon rocceeku mu daw jël ko attention daw nañ deuxième langue gi arbitre dugalaat na daan des ci kër gi voilà avertissement. waay waay sortie délibérée. daan des ci kër gi waaw. El Hadj ko sonal tey. avertissement yi ko ko ah way kal nañ ko. waaw waaw. voilà Daouda Ngom voilà am na victoire foofu Malal. aha voilà am na victoire. ci kaw El Hadj Diop. ci kaw El Hadj Diop. ayca kon bu baax léegi diggante Michel Diémé ak Daouda foofu dañuy way Ablaye Ndiaye Ablaye nga may ñu tuuti rek xale bi suuf la ñëwaat voilà foo ñuy indi foo ñuy yóbbu Ablaye Ablaye na ñëw ñu jox ko micro waa ma ngeeg kon nag Ablaye bismillah Laye Ndiaye waaw wona la do ñambere fiya toro jimbe korko yaa bay bay naaru misaat naaru xaadime siblaaye woo naa la doo ñaaw beresiya doo ñaaw gorko yaa préparer Malal Junior voilà man nga def bëgg rek voilà Malal voilà ñuy préparer wu. léegi ñu ngi woo Michel Guémé ak Daouda Ngom. ana Michel Guémé ak Daouda Ngom. moom moo war a ñëw léegi. Michel Diémé Daouda Ngom. Michel. mu ngi noonu mooy njool moom mu ñëw. Michel Daouda Ngom. mu ngi noonu Michel. voilà mën nga leen présenter Malal. Daouda Ngom Daouda nekk ci loxo yi. Cheikh Kémé aca ar bi kon nag ñu leen di wax bonne chance daan des ci kër gi daanu ñibbi daan des ci gi di lay toggal di la yakkal di la yóbbu ngay def loo chorégraphie am chauffeur di lay jox ceeb yu neex di la faj di la jàngal di la jàngal yiw ak baax di la jàngal comportement daan des ci kër gi daanu ñibbi arbitre sifflé na malal diggante diggante Michel Diémé moo njool nekk suñu càmmooñ ak ki nga xam ni mooy Dame Ngom moo gën a gàtt moo def ngemb lu vert li ña nga noonu ñoom ñaar di leewtoo foqante baaraam ca kaw ba léegi nag mbir amagul mel na ni daam day bëgg a dugg ndax bëre njool ak ndaama te xam nga ndaama yëgul yëgul njool waaye njool it yëgul ndaama voilà Daouda Ngom Michel Diémé hmm. voilà ñoom euh, seen biir la ñuy repêché kenn kan mooy des ci biir kër gi mooy des ci biir kër gi ak euh, ñan la ñuy lëng ndeysaan Bérésia ngay joli ca gannaaw ci Ablaye Ndiaye ñu ànd ci ak waa Patisen ànd ci ak jus Kangu boisson boisson instantané multivitaminé xale yi dañ cay naan rek ca kër ga gis nga nag ni ñu changé waaw gis nga ni ñu changé physiquement waaw am na solo day joxe énergie boisson kàngu pati seen dig leen gunge tey lii rey na l'observateur teew TFM teew RFM teew IGFM teew daan des si kër gi daanu ñibbi. kese ma nga noonu di. waa Boubacar. waaw man de li ma jaaxal boo àjjuma jotee dootoo sumi yére ba altine. seetlu ko man daal looloo ma ci jaaxal. seetlu nga loolu <laughs> boo soloo àjjuma samedi dimanche. damaa mujj wut lal ñu yóbbu ko foofu nga xam ne ma moo di grand théâtre wut naa fa appartement grand théâtre fa laay dëkk vendredi jeudi si ngoon laay dem balance. ngay balancer fanaan fa vendredi. samedi fanaan fa samedi. dimanche dimanche ma xëy dem stade Demba Diop. dem Lamba Diop. ah. xanaa Demba Diop VSD Futurs Médias. Demba yéenay xanaa kii nga yóbbu. tooj. lalu tooj fa jugee dem Popenguine. Ah, ah waaw waaw. pèlerinage marial. de Popenguine. ah ñoo ñoo fi ne nag. ndeysaan la yàlla def. ndeysaan. vendredi Fatou samedi Assane Ndiaye ak waa ngewel gi dimanche Bombardier dimanche lambu Sidi Jaxate tam da ngeen ko am loolu multiplex lay doon triplex la tubaab bi wax waaye man multiplex laa ko tuddee ma nga noonu Futurs Médias di wane kon foofu nga xam ni mooy mëninam ak dooleem di waajal tam jëm ci coupe du monde bi fas yéene def ay affaires yu am solo ci rajo bi ci télé bi ci journal bi war na ko ndomb jàpp ci géño gi mu daw daam bii moom Daouda mu ngi koy takk yëkkati na ko tël na ko mu bañ. voilà Daouda Daouda Michel Diémé. waaw jaay na ko doole mu lank. voilà Daouda Ngom Michel Diémé attention. xar na ko. voilà xam nga da ko lamber nag xam nga. attention mu ngi koy tël wàññi na daan des si kër gi daanu ñibbi. daanu ñibbi la de. Ah. ma nga noonu xam nga Daouda nag. Euh, ña nga ca saako yoo ñoom ñaar. Daouda dafa amagum benn victoire. waaw. Ah, daan des si kër gi daanu ñibbi xam naa sax Birane dina xool nu mu leen yóbboo ca combat Balla Gaye Bombardier ñu sol seeni blouson kàngu dimanche ñu dem seetaani làmb je loolu dina rafet ci ñoom waaw loolu dina am solo waa làmb académique kay dimanche dañ leen war a invité làmb ja comme kàngu rek la ak patisen benn la mburu foofu ko fariñ la rek diggante Michel Diémé ak euh, Daouda Ngom voilà ñu toll ci repêchage yi gannaaw ba nga xamee ne am nañu ñu qualifié ñu war a ñaar ci ñi nga xam ne mooy six mbër yi di bëri bëri leen waay xale yi Star Académie leen di yóbbu ci concert kon xale yi làmb Académie dañ leen di yóbbu ca làmb ja ma nga noonu tëggeew ba ngeen gis noonu Michel Diémé ak Daouda Ngom Michel moo def verte bu xaw a leer kee def verte ba nga xam ne moo gën a xaw saf giri te nag xam nga daa xale yi war nañoo seetaani gars yi ndax gars yi seeti nañ leen gars leen gars yi dem nañ ba nduxur a seeti leen waaw kon war nañ Bombardier ak Balla Gaye ndeysaan kon nag dimanche war nañu mën a seetaani Balla Gaye ak Bombardier ñaari xale yaa ngi def épreuve de force ku nekk di jouer au taureau pour jéem baaje sa morom pousse ko ngir mu déplacé wu nga mën a def action waaye seen xam-xam daa màcc bënn lool ci àllu bëre moo tax du yomb ci sa diggante ñoom ñaar daan des si kër gi daanu ñibbi <laughs> mooy way bu bees bi mooy way bu mucc parce que xam nga làmb académie daa dekkal mbapat daa dekkal mbapat ndeysaan di kër maam Youssou jën laa xamee mbapat ndeysaan foofa ca Médina fala fala ma wax la fa benn anecdote hmm. fala Kayre daje woon ak Moustapha Gueye booy Kayre waaye làmb ja yeggul ndeysaan ñoom ñaar fu ñu mës a daje Moustapha Gueye Kayre daje nañ ñaar yoon mbapat yàqu déet waay waaw ah, waaw ñaari yoon mbappat mbappatu sumba jun ak mbappatu yu sujjeen ñu bëree ba mu tas non non du yegg sax ah. du yegg booba dañu toll ci waxambaane nag ndeysaan waaw xam nga waxambaane yi mbër booba Moustapha gi ci waxambaane yi mbërëm Kayre ngi ci waxambaane yi mbërëm ndeysaan ñu tolloo doole waaye ñoom ñaar nag mosuñoo daje arène ah ndeysaan loolu mooy coow li c'est dommage booy Kayre ak Ousou Paye seen classe ñoo fa indiwoon jën bu ñu lakk def ko ci casier ba booy Kayre ak Ousou seen classe ñoo fay di woon jën bu ñu lakk Michel war na ko ndomb def ko ci casier ba maître ba Michel parce que Daouda am victoire oh! oh, oh, des si kër gi daanu ñibbi voilà daan daan bu spectaculaire ça a été. ah oui bien mais mais yaakaar naa jeex na ah. des na benn combat laa ji. Ah mooy ah repêchage. diggante Birame Diop ak Michel Diémé. deux victoires. voilà. voilà ñëw leen ñëw leen ñëw leen diggante El Hadj Michel Diémé. li ma dese ci waxtu bareetul ñëw leen. voilà. Michel El Hadj Diouf ana El Hadj. waaw ñëwal. El Hadj Diop El Hadj Diop jógol. 4 minutes dese. El Hadj Diop moom moo ma wet El defe naa ne ki nga xam ne mooy Daouda Ngom moo qualifié. voilà. Daouda Ngom. voilà combat bi aja El Hadj soloxo El Hadj yëkkati sa loxo. voilà. Ah. Michel Diémé yëkkati sa loxo. voilà nag combat la boo xam ne gungente la dañuy gungente. ñoom ñaar ñii dañuy gungente. waaw parce que dañu éliminé ñoom ñaar. <coughs> dañuy gungente. <laughs> du ñu wet ci wa ndeysaan les malheureux voilà kon kon nañ jàpp ne Daouda Ngom moo fekki gars yi waaw voilà Daouda Ngom moo fekki gars yi Sitor ña nga noonu gi lu lu lang gi lay ñëw rek lang bu ci mujj bi Thiès waan ey ey biir kilaan ci de l'horreur ñaari xale yaay noonu ci digg géew bi ñoom nekk en très mauvaise position la bir kilaat je ne la je ne la rere muy le dernier combat Thiendella Mbirkila kan mooy daan pour sauver la face Thiendella Mbirkila kan mooy daan pour sauver l'honneur sortir sur une bonne note yow Ismaïla refa nga ma laaji ka kenum yaay sama Thiendella besaga waade gi dem nañ ci séeréer Thiendella Mbirkila Thiendella Thiendella Mbirkila Thiendella Thiendella Mbirkila Thiendella waaw bëri leen mu jeex Thiendella waaw Thiendella voilà da pour gagner du temps voilà pour gagner du temps euh, ñi des ci kër gi voilà Ablaye Ablaye Ablaye may ma tuuti Ablaye may ma tuuti rek voilà tëggkat yi may leen ma tuuti ñii des ci kër gi poule A Mamadou Seck dina des ci kër gi Mamadou Dieye dina des ci kër gi Euh, poule B bi Léonel Diémé dina des si kër gi Ousmane Sow dina des si kër gi poule C Cheikh Niang dina des si kër gi Dame Ndiaye dina des si kër gi euh, poule D Mamadou Mbaye dina des si kër gi yaa Saint Amath Diouf dina des si kër gi Daouda Ngom dina des si kër gi Souley Sarr dina des si kër gi fukk yooyu lañu ñu retenir ci li nga xam ne mooy prime bu njëkk bi ci Lamb Académie euh, Boubacar yaakaar naa ne Euh, loolu nag mooy résultat bi nga xam ne moom la ñu am tey euh, di mercredi euh, ñeenti fan ci weeru juin 2014 ni ñu leen ko waxoon Lamb Académie première journée bi dafa am takk ndax daa 10 ans dinañ ne kañ lañ ko commencé woon dañu ne veillu combat Balla Gaye ak Bombardier la ñu commencé woon prime bu njëkk bi kon lamb day am takk histoire da koy retenir kon Boubacar defe naa tey ci guddi gi lii la amoon ci li nga xam ne mooy Lamb Académie di ci am mbégte lool te di jàpp ni dinañu fexe xale yi ni ñu demee foofu nga xam ni moom moo di euh, ca combat Balla Gaye 2 ak Bombardier ñu daal di leen euh, yóbbu foofu dina rafet lool ndax xale acad académicien day dem ca académie ba kon daal ma nga noonu euh, Alaaji Malal Junior Diagne ma nga noonu Boubacar wax nañu ko loolu mooy xew-xew bi donc vous venez de suivre donc ce premier prime la liste Voilà la liste des, des lutteurs qui vont rester dans la maison. Mamadou Sek, il a 6 points. Lionel Djemé, il est qualifié. Ousmane Sow est qualifié. Mamadou Djei est également qualifié. Euh, Mamadou Sek et Mamadou Djei. Attention Voilà. Et c'est Lionel qui bat Elas Diop qui concède euh, sa quatrième défaite ce soir. Malheureusement pour lui, il va quitter l'académie Mamadou. a noter que Cheikh Niang, Dame Ndiaye sont qualifiés. Mamadou Mbaye, Yacine sont également qualifiés. Daoud Ngom et Souley Sarr sont également qualifiés pour le prochain prime. Ça été un plaisir pour moi de partager avec toi ce plateau. Merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre prime, Inch'Allah. Ah voilà, bon Boubacar, dans 15 jours. Certainement. Tu aimes le football, j'aime le football. Il y a la Coupe du Monde, mais on verra comment ce que ça va Birane Ndour travaille autour de ça. on verra bien hein? il faut nous amener une télé et les matchs aussi. maa ngi laa gërëm. voilà jërëjëf Boubacar di la gërëm bu bax di la masawu coono it. ñoo bokk xam naa ne fi mu ne moom nee naa la ajjuma. ajjuma moom dootoo summi yére ba altine. dama ni na métti <laughs> borom kër gi liggéey la. santaane liggéey la bëgg moom la ñu xam. merci beaucoup kon ñi ngi waajal Fatou Guewel. incha allah vendredi samedi ñu def Assane Ndiaye dimanche ñu defal leen Popenguine ba noppi daal di leen defal li nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 Bombardier bu dara set télévision Futur Média na lépp yëngu bu dara set ñu dem yóbbu leen Ndar Géej kon waa Ndar ku ayewal sa moome festival de jazz ba ngoog Lamba Académie gërëm na leen àndoon ak Pati Sène ak Jus Kangu jërë ngeen jëf.